suñu loxoy ca kaw ala nabi wa alayhim ajmaina salaama rabbina mbokk yi mu ngi noonu liggéey bàngook jumaa jàngoog sànc bàngoog mu ngi waaxu di dem rek nañ waaxu topp ci mu ngi dox di gën a jege ci jeex nañu yëq la ñuy joxe rek mooy gën di dem tabaarakallaahu lu waay def ci néegu yàlla yàlla delloo la ko rawatina néegu yàlla nittu yàlla te Seydil Hadji Malick jàmb yàlla gërëm la te nag euh, jàmb yàlla gërëm euh, lool laal ci moom bokk ci ngërëm la rawatina xalifa bii wooteel ko liggéey bi mu di Seydi Aboubacar Sy Mouhamadunil Mansour yéene taalibe yëpp yiw moo tax mu téye liggéey bi woo ci ñëpp waaw ne bu ko neexoon woo buur yi woo njiitu waaw woo ruwaay ak seeni milliards ñu yeggale ko waaye woowu leen de la woo waaw waaw eh, eh, yàlla yi la woo tabaarakallaahu mbokki Sénégal la woo kon nag bu nu xeeb suñuy dërëm dërëm yi waaw waaw ndax moom ci boppam nee na incha allahu taala barki Seydil Xaaji Malick ak dërëmu taalibe yi mooy yeggale jumaa ji loolu nag sasu rëy la kon lu waaye doon def na ko yokk lu waaye defoon na ko dolli waaw tabaarakallaahu te ñu boole ci di ñaan nag waaw boole ci di ñaan yàlla sàmmal nu ko kattanalal nu ko rofal nu ko wér ba jumaa ji yegg ba mu mën a ñëw ubbi ko ci sagoom ak dal ak mboolem ay rakkam ak mboolem njabooti diine ji tabaarakallaahu liggéey bi daal mu ngi noonu xam ngeen ne finition jafe na lool waaye liggéey bi moo toll noonu parce que dañoo teg seen bët fu sore xool jumaa ji nga xam ne jumaa yi gën a moderne ci àdduna bi tey ci la bokk jël plan bi ak li ci aju lépp ngir mu nekk loo nga xam ne que taaru lislaam lay doon looloo tax nag du yomb waaw dana jafe ndax ku nekk xam na ne àdduna bi actuellement tabax ni mu chéré rawatina chantier bu tool nii grande mosquée bu Tivaouane kon nag ñu ñaan mbokk taalib yi rek euh, forme yi ñu ko mën a defee bëri na waaye rawatina application bii di weef nga xam ne fi ngay fayee say facture foo ngay dugg rek soo yoree sa 1000 francs tabal ci soo yoree sa 5000 francs tabal ci soo yoree sa 10 tabal ci baña a lenn loo am waaye bañ a yéem lenn loo am ndax tabaarakallaahu li Serigne Mouhamadul Mansour si Jamil wax rek dara rafetul ba jomb Seydil Hadj Malick mbépp mbir lu mu rafet rafet rek Seydi Hadji Malick méritoonul ëpp loolu rawatina xalifaam bi ko wootee liggéey bi fa tabaarakallaahu mbokk yi liggéey baa ngi gën a avancé tabaarakallaahu chaque jour euh, ñi yor liggéey bi ñi ngi ci noppaluwuñu kon nu ñuy dugal bu ñu noppalu te xam ne fi ñu koy def jar na ko. jërëjëf xaaji Wilane ni nga ko waxee fa tabarakallah macha allah am na solo ñi ngi ñaan yàlla yàlla fay la yàlla yàlla dëgëral la ni nga ko waxee noon dong la euh, borom Wilane TV ñi ngi lay ziara bu baax a baax. macha allah li liggéey am na solo lool eh, xadara bi rek moo la ñor moo tax eh, foo toll rek yaa ngi si bay sawaar ñi ngi ñaan yàlla yàlla dëgëral la yàlla yàlla taxaw la bu baax a baax képp ku ñuy seetaan rek lay ñaan nga abonné bu baax ci Wilane TV moom kuy liggéeyal xadara bi la kuy kuy kuy kuy sondi xadara bi la yàlla yàlla fay ko yàlla yàlla dëgëral ko bu baax a baax. ñu ngi lay ziara bu baax waaye ni nga ko waxee noonu dong la xalifa bi yéen a ñëpp yiw moo tax. mu ne ñew leen euh, loi am nga def ko si juma ji waye ñi nga xam ne tamit ñi ngi wote ngir nit ñi mën ci jaar ko ci melni imam ali Musa Sambo gis ngeen wote bu reey bi nga def nako ñun ba legi sax dañ na ñu ñuy contacter di ñu laaj ku bëgg participer ci liggéey bi naka ngay def kon nga xam ni ñoñu amana peut-être buñ jaaree ci yow ba participer rek lolu japp na nekku lu ndaw kon lolu motax ñun chaque jour rek euh, ñuy ni ñi def ay vidéo Euh, ngir ñu mën a dégg sunu làmmiñ bu xeebu bii euh, li xam na ni sax niñ ko waxee du noonu waaye euh, amaana nit dégg sa kàddu rek contacté la ni doo bëgg a participer loolu leen ci jot ci ay ay appel na loolu yàlla xam na ko di laaj nan lañ participer ñun boo gisee loolu dong moo tax yéene suñu bopp yi waaye yéene leen di diw loolu moo waral ñuy def loolu kon nag jàpp naa ne képp ki nga xam ne mën ngaa wax pour nit ñi dégg la rek euh, kon war ngaa mën a wax loolu rek la moo tax ñi ngi ziaraat ñëpp euh, ku ci bëgg a participer nag moom euh, yomb na numéro yaa ngi noonu ñu affiché leen si écran bi wala képp koo xam ni gis nga photo bi nga xam ne waa Jamaahiratoul Nourayni Sunna ñoom ñoo ko defar boo gisee boo xoolee di nga gis numéro yi ci suuf nga jaarle foofu sa sa sa sa ñaq ngir mën a participer ci liggéey bi nga xam ni comme ni ko xalifa bi waxee rek. yéene ñëpp yiw moo tax mu ni ñëw leen ñu ñu liggéey fa tabaarakallah euh, jàpp naa ni loolu daal lu ama am solo la waaye ba tey tamit euh, appel bi nga xamante ni imam Modou Dieng woote na ko muy muxaddam Serigne Abdoul Aziz Al Amin nekk foofu ca Sac Mbao moom mooy woote aljuma bi ñu dëgmal incha allah tombeeg le 12 mais vendredi 12 mai incha allah euh, fépp fay nekk rek ñu ngi lay woo foofu ca masjidu rasul nekk ca cité SDF foofu ca Sac Mbao incha allah ñu nar faa amal tamit li nga xam ne moo di julli juma te noonu tamit ci ngoor gi ñu nar faa amal xadaratul juma bu mag a mag waaye tamit euh, loolu li nga xam ñu ngi koy dajale foofu mu soxal liggéey bu Grande Mosquée bu Tivaouane bi. fas nañ yéene dajale ko foofu nu mu toll mu néew mu bari ñu euh, dugal ko ci liggéey liggéeyab Grande Mosquée bu Tivaouane fa a comme ni ko comme ni ko imam Alioune Moussa Samb defe woon ñoom fa tabarakallah gis ngeen vidéo bi nga xam ne dugalal nañ leen ko démb ñu di ci woote waaye incha allah ñuy ñaan mbokki taalibe yëpp rek fu waaye nekk wa Sac Mbao wala rawatina Sac Mbao li ko wër yëpp masjidu rasul nekk foofu te cité SDV foofu ca sac mbaaw wala képp koo xam ne bëgg nga ci ay leer lit numéro boobu affiché incha allah boo ci wootee rek euh, di nga jokkoo euh, ak ñu wan la fan la jumaa ji nekk nga mën a ñëw teewee xadara bu am solo boobu fa tabarakallah xadaratul jumaa bi waaye tamit joxewaale say participation bu fekkee joxe goo ko woon wala ni comme ni ko Souleymane Ba waxee Oustaz Souleymane Ba ku joxe woon na joxewaat ci xam ne li nga joxe dinañ la ko joxeel ci Grande Mosquée bu Tivaouane tabaarakallaa loolu it yaakaar na ni am na solo lool yal na yàlla fay ñëpp yiw kon daal appel baa ngi noonu imam Modou Diène Mouhadam Serigne Abdoul Aziz Al Amin mi ngi woo ñëpp daal euh, vendredi 12 mai comme ni ko imam Samb defe woon lu baax nag dañ koy toppandoo waaw comme imam Alioune Moussa Samb daf ko defe na nag woote ñëpp wuy si ko moom it woote na vendredi 12 mai foofu ca Sac Mbao fa tabaarakallaa cité SDV euh, masjidu rasul bi nga xam ne moo nekk foofu incha allah ñun ñëpp ñu dem Euh, teewe ko wuy ji ko euh, joxe waale suñu participation yal na yàlla fay ñëpp yiw image yi ngeen di gis nag euh, fa tabarakallah mooy tolluwaayu liggéey bi comme ni ko xaaji bi daan waxe sori na mi ngi ci finition yi finition nag ku ne xam ne dafay laaj xaalis kon nag luñ ci defoon rek ñu xeep ko incha allah yal yàlla motti lépp yal yàlla fay ñëpp yiw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ngi leen di ziar bu baax jërë ngeen jëf. ah macha allah teg ko ci loxo imaam Samb ngir jumaay Seydou Hadji Malick ji say miir génnul jumaa ji miil yi fii rek la jëm si fii fii la miil yi jëm si jëmul ci poosu imaam jëmul kër imaam déedéet miil yi mi ngi jëm ci jumaay Seydou Hadji Malick kon yow mi defoon miil defaatal ku deful woon defaatal boo amee lu ëpp miil defaatal jumaa jàngoo fii dama ñu woon ak biir chantier pour ñu xam fan la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 سن لخيتك وعلى النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا جاي